di waajal la 5 la 5 nag xale yi ngeen di gis mbokk yi ñoom ñoo koy bëre Karbala moom mooy daje ak Boy Waalo combat boo xamante ni nii combat bu am solo la Karbala yaa ngi jàkkaarloog Boy Waalo Boy Waalo nuyonte leen duma ma leen waxaan ah, ku mu neex na nga njëkk a nuyu sa morom ku wóol sa bopp na nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum. alhamdulilah bisimilah inna wali yàlla. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëf Euh, maa ngi nuyoo Modou mbay di nuyu sama ab Abdoulahat man sama père laa koy wax. ndeysaan sama père Matar Ndiaye. Mhm. tey ñun ay mbëri ndaw lañ. Mhm. ñoom ñoo ñu taxawu wóolu ñu duñ dugal ci ay bis. dëgg la di ñu nemmeeku. waaw kon ñun mënuñu leen fay. ak jaw bi nga xam ne tamit jeune nga comme ñun am mhm. ambition. ñu gis sa liggéey ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax li nga bëgg yaa xam yàlla suñu borom defal. di nuyu suñu papa Bekaay. di ko wax ne oto bu nekk ci kanam. oto bu nekk ci ginnaaw kenn du ko corné oto bu nekk ci kanam rek la ñuy corné. maa ngi nuyu sama papa Jibi Ndiaye. Mm-hmm. ak tonto Tafa. Mm-hmm. ak sëñ bu mag bi sëñ Bamba. ñu ngi leen nuyu di leen jaar nuyu xeer ngor sama doom baay. Mm-hmm. Paul bu Daaru. Vito ak Ndoy vitamine ak Boy Waal sama adversaire. lu tax nga damaa topp kii bi rek du dara. Ah. waaw damaa topp kii rek. <laughs> Boy Waal kii bu baax di ko wax rek Boy jërëjëf li nga nangoo jël sama avance. waaw di nuyu waa Pikine muy sama papa sama yaay ak samay xarit yëpp waa di wax tamit ñu ngi jaajëfal euh, service d'ordre bi bu baax gis nañ fan yi affaire yi nu mu méttee mais di ci profité waale Serigne Ndiaye agent police bu Tëngéej. Mm-hmm. di ko woo si combat bi jaarale ko ci di woo service d'ordre bi yëpp. Mm-hmm. waaw di leen wax ñun ay jeunes lañ xam nga gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen masawu coono aussi. macha allah waaw di nuyu père commandant ak waa làmb yëpp. waaw mu ngi lay fay Modou baada auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaar waajur di sant sama sëriñ Cheikh Mouhamed Moustapha Sy Al Maktoum di sant suñu capitaine maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum di ñaanal suñu maam Massa Ñanduxum yàlla yokk leeram te taañu si bàkke maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum waaw di nuyu assistance bi yëpp mhm. waaw di nuyu suñu papa yi toog ak suñu moroom yi xam nga di nuyu waa yëmbal fa ma bàyyeekoo mhm. di nuyu waa waalo xam nga waaw euh, du nuy sama adversaire Karbala. Mhm. di la nuyu Modou. Mhm. di nuyu pour promoteur bi Père mhm. Jibi Ndiaye. di nuyu sëñ Bamba Faye xam nga Père Abdoulaye Père Tafa Buuju maa ngi lay nuyu di la wax ci combat sama per la ah. ndax tey jii bu ma déggee <laughs> Tafa Buuju bu per bu Balla Gaye man doomu Jaw laa Jaw bu Balla Gaye Jaw ak sama papa ñoo bokk benn baay kon maa ngi koy woo si kombaa bi mm. mu mottali ma benn bolok rek ma am quatre bolok <laughs> xam nga di woo Père Jibi Ndiaye bu baax a baax <laughs> xam nga di nuyu père commanda cun sama xarit waaw waaw ah, ndax moom moom mais père booy bi li muy def ay dégâts laa mujj bari na man moo def dégâts ndax moom sax moo bëre mu may ma xaalis ah. kon def ma benn dégâts waaw <laughs> ah, ndax <laughs> xam nga di nuyu champion yi Paul bu daaru xam nga ndoo <laughs> vitamine xam nga di ñaanal vito ndam si mu hmm. sama doom daal ñu bokk benn écurie waaw di nuyu xeer ngor xam nga di nuyu sama grand ma àndal kos waaw ah, di woo waa yëmbal waa mafia gétt gi mais balaa ngay woote xamante ngeen yéen ñaar Karbala xamante nañ waaw bokk nañ journée yëkkati na sama loxo di ñaan bis baa tamit arbitre bi yëkkatee noonu sama loxo loxo mhm. waaw dañoo bokk journée dend ci mukaay euh, ci public ma gis fa ñaar ñoo xam ne dama leen xam ñu sekk jàmm benn instant ma daw génnoon ñu génnandoo xam nga làmb rek day day nekk loo xam ne da koy def sax mais aar lay nekk làmb aar la waa ñu làng daw génnoonoo supporter yi tàcc mu yëkkati loxoom. ndeysaan na ko jàmbaan nga affaire yooyu noonu. mu mm. bëre yàlla def safaan ma préparé dem loolu waat entraîné waat ñu joxaan ma ko combat mu bëre daan Pape Gouy Gui ñëwaat. jour bi ngeen bokkee journée. waaw. yow da nga daanoon. dama daanu. da nga daanu. waaw moom mu daan waaw. ok mu daan. loolu la yàlla dogal xam nga. tamit bi ñu ma woowee na ma booy waalo hésité wu ma sax parce que man jàmbaari ci làmb xàmme naa leen. buñ ma woowee ci làmb rek man Matar Ndiaye mosuma woo ci mbër may sikk sàkk booy waale booy bi jour bi mu jour bi nga daanee mu daanu la la nangoo jël xam nga loolu non après mu bëri waat na fi ba daan sax mais jour bi mu nga daanee mu daanu jour boobu la la bàyyi xel la la nangoo jël waaw ndax tamit moom moo yëgti sama loxo xam nga <laughs> man lu may wax ni comp ma ko woon sax waaye bis baa yàlla na yàlla def at wi yëgte noonu sama loxo quoi waaw da ngay xaar de. waaw bu bis baa yow. yow xaar yow il faut ñëw si ma fi ak gerte gi ma dugal la si biir gerte gi jatang say tànk quoi ay xar a fay dugg. waaw fëy ay fas a fa ne. voilà ay xar ñoo fay dugg ak ay yooyu noonu laa. yaa may ma rek. da nga lu ma lay déglu. Euh, Modou Mbaye. Hmm. kii daa jël lu mu xamul dafa juum ci choix bi. Hmm? waaw parce que dafa ma gëjoon gis ma am nu ma nu ma ñëwee fekk loolu baaxul. mais bi mu ñëwee nii tey dafa am lu ko bett ñun ay mbër lañ xamante nañ ñëw maa xool sax ci bët te bu jour làmb jaa dama koy dalal damay dama koy dalal ci fair play parce que man maa dëkk ci taatu stade bi jàmm xam nga man jaaykat kerem sax jaaykat ndox yi café yi stade man lañ faral <laughs> ndax maa dëkk ci taatu stade bi waaw dama koy dalal jàmm rek mu mm-hmm. ñëw bëre ma duma ko daan ko si kàttanu suñu borom incha allah li muy wax yomb na de dafa yomb ndax Père Abdoulaye taxul loolu mu wax Matar Ndiaye mu monté combat bi rek <laughs> dëkk stade bi nii mobiliser jaay ticket jaay ay talon moo tax ñuy tëgg. man mobiliser yaa ngi dégg suñu père euh, Jibi Ndiaye daa yor ay njaboot yor leneen bu ko neexoon tey ji mu def ko si bâtiment di luy kër xam nga dëkk stade étage bi mobiliser lañu wax. man yëmbal laay jugee moom si stade étage bi la dëkk. Modou Mbaye na mobiliser loolu laa koy wax. booy waalo mobiliser moo tax ma toogaat fii nañ gore wuy ma. da nga may déglu la. Dakar boo ko ñamee mu saf da ngay dem jëndiwaat. père Djibi Ndiaye dafa maa ñam ma saf sàpp mu dolliwaat ma te bu ma ñëwee jour làmb ja say supporter bu ñu yéexee duñu am foo toog. bilaay wallaay bu ma ëppee bu ma waalo bari na supporter de. macha bi mooy sama huitième combat. ñaata victoire nga am am naa cinq victoire deux ñaata combat huit victoire trois défaites. mais ñi ay kon kenn kenn kenn rawatul. ma ko may dara du ma may ma jël. <laughs> déggoo ma de. dañ maa yónni yàqamti ma. xeex bi dina sax fils Jum Cheikh Omar. day saw sax dañ maa yónni yàqamti ma. day saw sax ak école de lutte gi yëpp. waaw la bañ fils Jum mbër lay wax. fils moo nekk sama ginnaaw man aw ma dara lu may sikki saaka ci mbër. sama bët maa ngi koy nuyu champion bi <laughs> man terrain njaaram laa commencé. aja waaw woote dëgg rek waaw woote leen. waaw di woo Mor Mbaye. aja damay woo waa Pikine. Karfala nag dafa bari supporter ci TikTok bi. waaw <laughs> ah, moom waa TikTok bi dañ koy bëggee de. waa dafa leer ñooñu laay njëkk a woo sax parce que déjà <laughs> fans club judd na fa sama combat bi passé. ndeysaan. waaw ci benn image boo xam ne bi ma dawee dem nuyu sama papa affaire parce que dafa ma bett ñëw ci gisuma ko. mu bëree pare lañ mën a mi ngi ne ci laa daw yéeg foofu. ndeysaan ah, di félicité di di di félicité Jib Ndiaye bu baax a baax maa ngi woo monsieur le maire euh, Cheikh Diop xam nga le nouveau maire di woo Iboulaye borom Cap Banlieue Rama Makis euh, sama grande sœur. Mm-hmm. Aïssatou Diédiou nga xam ne Macky Sall da ko wóolu xam nga maire Nogay Seck maa ngi koy woo Magay Seck Youssou Massaly maa ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàppale ma ak président Bafou Fallou Fall doomu nday Sadio borom Benfica maa ngi lay woo di woo monsieur monsieur ak euh, madame Silla ñi nga xam ne tey dañuy jàpp sama combat di ma defara ay tisat ak ay baas maa ngi leen woo bu baax baax yaay jàmbur maa ngi koy woo Suudu Diop ak Baba Thiam Serigne Ndiaye policier maa ngi koy woo bu baax a baax ak sunu délégué de quartier Momadou Thiombane maa ngi koy woo Assane Dioum borom Italie maa ngi lay woo bu baax a baax Père Louis Gomis suñu président ASC maa ngi koy woo Mbaye Toldo borom Instagram bi maa ngi koy woo bu baax a baax a baax ak Ndeye Khady mi nga xam gi moo ma doon toggal reer waaw di ma jox hmm. ndogu xam nga. eh doy na waaw di Maram Faye maa koy woo bu baax a baax. nees maa ngi koy woo aussi borom Seras. doy na doy na waaw ak tonton Maas ak Abdou Diop laay borom Milan maa ngi bu baax a baax a baax. booy waaw di woo waa Pikine yëpp nag. samay xarit waa Asam. di woo Ama Baldé ci combat bi di woo Boy Niang ak Sokh di ñaanal Sokh ndam. xeeru ngor tamit maa ngi léegi nekkatul 100 pour 100 200 pour 100 parce que mag ñi ñoo jóg. xam nga mag mag mooy gis loo xam ne xale du ko gis. ah mais booy boo leen 200 pour cent waaye yëmbal ñoom 300 pour cent. du doy kii du du doy de. waaw santaat yàlla bu baax a baax. di woo waa yëmbal. waaw route de Boune bi yëpp. waaw di woo waa Waalo. waa Ñic waa Mala waa Bokk waa Kër Mama Sarr tundu Waalo gi yëpp ak waa Ndar xam nga di woo ñëpp di woo gars bu ñu bàyyi dara waaw nu ñu amee ndam baax na ndax dañ kaa soxla waa mafia gétt gi xam nga di woo Baye Daaru yi taalibe maam Thierno yëpp yu nekk yëmbaru de bi. ñu ngi leen a woo bu baax a baax di woo ministre Amadou Hott ñu ngi koy woo si combat bi. Mm-hmm. doomu yëmbal lañ. waaw xam nga di woo suñu monsieur le maire Baara Gaye. Baara Gaye mu baax ñu koy woo bu mm-hmm. baax a baax borom mm-hmm. yëmbal. ñëpp gis lu mu liggéey. waaye xam nga daa war a jàpp si combat yi ñun ay ticket kase lañ soxla ak ay car. soxla mu xaalis bi def suñu poche xaalis ñoo koy liggéey. xam nga di woo staff bi yëpp di woo grand dem. waaw moom mu ngi si jàpp bu baax moom mu jàppee ba la bàyyiwul grand Abu Jaata mm. grand Bàcc Bari Youssou Ndongo mm. waa Mafia Gétt gi kon ba tey waa Kiraama waa Torino waa place Aline bi yëpp grand frère ñu ngi woo ñëpp xam nga di woo waa yëmbal suñu yitte mouvement yëmbal suñu yitte ñu ngi leen woo bu baax eh, waaw di ah, woo eh, président bi Abdoulahat ñu ngi lay woo bu baax a eh, baax si di woo waa ASC Diiso waa ASC Sanc bi ñu ngi leen woo bu baax a baax moo VIP ah. di woo waa Grimage waa non SRS ñu leen woo. Eh, booy doy na de. waaw non dañuy dañuy. di woo samay xaritu xale. ñu may ànd bu nekk xale ba léegi maa ngi leen woo si combat bi. sa ami d'enfance. waaw ba léegi ñoo ngi ànd. <laughs> xam nga ñu ba léegi ñoo ngi ànd dara ah, ñaawul. maa ngi leen woo si combat bi ñu ñëw taxaw si. lépp seen loxo laa ko teg di woo waa fuur bi yëpp xam nga di woo képp kuy bëggee booy waal ak foo mun na ne rek. jaajëf.